cheytaan rajim bisimillahi irahmaan rahim barkeb sëriñ tubaa xadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan boo leen gisee jataay bu tedd bi xam ne ndigal jibati na jóge ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke di jëwriñi xaadim rasul jëm nag ci mboolem julliti rawatina taalibey sëriñ tubaa cheikh ahmadou bamba xaadim rasul ndigal loolu nag gannaaw bi mu bàyyee ko ci sëriñ bi ñëw ci ki nga xam ne moo di sëriñ mouhamadou xabbaan mbàkke ibnu cheikh mouhamadul fadal mbàkke mu nekk ndigal loo xam ne nii moom la fas yéene yëkkati jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ne nii naka jekk sëriñ bi da leen di jox ndigal loolu nag du leen lu dut waajtaayu liggéey bi nga xam ne dafa jëm ci tool yi ndax sëriñ bi at mu jot dana daal di yeesal ndigal lool soññ mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ngir ñu daal di laxasaayu sóobuwaat ci tool yi dem nag waajal nawet bi loolu tax na nag jataay bi incha allahu rabbi sëriñ eh, Mouhamadul Xabaan fas yéene yëkkati kàddu yooyu nga xam ne nii jóge na ci sëriñ bi di ndigal jëm ci mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi di firndeel rek wàccuwaay wi nga xam ne nii liggéey rawatina mbay am na ko ci yoonu murit kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Xaban Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadul Fadal mu daal di jottali digal loolu sëriñ bi neen asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na ñun mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu leen di nuyu bu baax di leen sant nuyoo bi ak cant gi mu ngi bàyyikoo ci kilifa gu mag gi. Cheikh Mouhamadul Mountakha. ñu fi nekk Cheikhul Khadim. te mate ko sëkk. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi. àggale yéeneem. àggale yéeneem ba mu tàmbaliwaat yeneen. nee sëriñ baa ngi leen di nuyu bu baax. di leen sant. yu nekk muy farata leen sargal ak ci fi fi ñu nekk nii muy weeru koor bi nga xam ne ci la nekk. ñu ci am ak cant bu baax. mu bëgg nag. mu bëgg nag. suñu jógee ci ramadan bi. bu ñu jógee ci weeru koor bu mag bi. ba naan ndox. ba naan ndox. mi ngi digal bépp taalibe boo xam ne yaakaar na Seexul Xadim. mi ngi digal bépp taalibe xam ne yaakaar na Seexul ci ab yëngoom jëm ci ay tool. ñu waajal tool yi. ñu waajal tool yi. ñu ngi ko jàpp nag. ñu ngi ko jàpp nag. talaata ji ji di ñëw. bu dellu see. fekk ñu jóge ci li ñu koor gi. fekk ñu ngi ciy ñaan nag. mi ngi borom fekk ñu ci ak ndimbalam. fekk ñu ci ak tawfeexam. mu wax ni. mu wax ni. ab jullit. mu wax ab jullit. bakkanam ba mën balaa mën moom balaa mën moom bakkanam ba mën ko jox sëriñ bi. Ah, man di liggéeyal sëriñ bi ci ci baax. man li mu baax. day day ak liggéey. liggéey ndax liggéey moo tax a jaamu yàlla. na rek. moo tax waxtu woo xam ne liggéey jot na rek. mu soññeewaat loolu. loolu. bëgg ñu gën cee jëm bu baax a baax. mi ngi ñaan nag suñu sunu borom tabaaraka taala def ci ay tawféex yu yaatu yaatu. sotti ñu ay xéewal yoo xam ne. day ëmb liñ jëm. day ëmb jëm. faj aajo yëpp. faj aajo yëpp. képp kuy ab jullitam. képp kuy ab jullitam. mi ngi ciy laabiré. mi ngi la ciy laabiré. waaye ndigal li moom. waaye ndigal li moom. ñu sant mboolem taalibe murid yi. mi ngi koy sant mboolem taalibe murid yi. waaye mën a mën a nekk rek. fekkee ci ay tool nga daal ca yëngu ci sa liggéey jëm ci yëngu ci ay tool. nee na mi ngi lay digal nga yëngu jëm ci tool yi. mu ngi ci am yaakaar bu baax nag. ndax suñu borom tabaaraka wa taala moo sàkk ko ñaan. te ñaanu Cheikhul Khadim. moo ko amee moom sëriñ Mountakha ca ni mu ko ñaanee rek noonu lay amee. kon ñu dëgëral yaakaar yi. te jublu ci tool yi. di ñëw muy talaata ji di ñëw bu dellu see ñu ñaan suñu borom yàggal ko ñu borom ko fi yàggal njaboot gi ci gannaawam gi muy ak cheikh ak magi taalibe yi suñu borom def ñu def ñu doon ay murid saadex lu ci ci ndigal ñu def lépp lu bàyyi ko ci sëriñ bi ci ndigal suñu borom jàppandal ñu ñu mën a wéyal loolee wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi kon ndigal laa ngi noonu bàyyi ko ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke mu jaarale ko ci cheikh mouhamadul xabaan mbàkke ibnu cheikh mouhamadul fadal mbàkke mu jëm nag ci wàllum waajtaayu liggéeyu tool yi ni ko waxee rek talaata jii di ñëw bu dellusee war a dëppook le 2 mai 2023 kon yàlla nañ ca àgg ak jàmm jëfe ndigal li daje ci ak tawféexi suñu borom ci barkeb Serigne Touba cheikh ahmadou bamba xaadim rasul di ko ñaanal moom cheikh mouhamadul muntaxa mu yàgg fi